docteur Babacar Diop euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. docteur Babacar jóob nga nekk gynécologue mardi bi ñuy euh, màggal bés bu ñu jagleel wàllu ménopause. Euh, mhm. d'abord lan mooy ménopause pour ñi koy dégg te xamuñ ko. salaamaaleykum. Mhm. ménopause mooy période bu nga xam ne jigéen yépp dina leen dal mooy bu ñu amee fukki at. ñeent fukki at ak juróom ba juróom fukki at day dem ba seen euh, règle day arrêté su règle bi demee ba arrêté ba mu def douze mois rek dañuy wax ne yaa ngi dugg ci ménopause loolu nag du feebar. Mm-hmm. lenn loo xam ne day ñëw noonu la c'est normal amul benn problème loolu du feebar du problème organe du problème dara. donc c'est c'est tout à fait normal li nga xam ne mooy ménopause mais euh, yan signe euh, lan mooy mën a wax ni ku jigéen ki moom euh, mi ngi approché ci ménopause wala mi ngi nekk ci ménopause lan mooy signe exactement si yaatal waaw waaw moom mooy par exemple da ngay toog yi di gën di sorento hmm? ngay toog règle di gën a sorento mm-hmm. ngay toog <coughs> yenn saa yi euh, euh, euh, naka lañ koy waxatee sax da ngay am benn yëg-yëg sa yaram boo xam ne day mel ni. Mhm. dafa am tàngaay buy jógee sa dugg sa buy sa yaram di sa si yow nga ñaqatooy xepp. Mhm. yooyu moom ci ay signe signe préménopause lañu. Mhm. signe yoo xam hmm. boo ko gisee xam nga ni. Hmm. soreetul mais mais euh, période préménopause euh, euh, ban diir la un an lay def deux ans trois ans quatre ans. waaw ñu ngi ñu ngi laam laam laame ne diggante benn at ak juróom juróom at ak juróom ak ñett la. si lay déjà commencé di wane bopp. waaw waaw soo amee ñeent fukki at rek mun na commencé. donc euh, du nekk loo xam ne ménopause du du nekk loo xam dafay dafay dafay euh, brusque maanaam dangay ngay jékki-jékki rek règle yi arrêté wala dafa am du du ne ñëw rek ne cëpp sa kanam mhm. day ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk nga ko yëg ndànk ndànk parce que sa yaram dafa am ay lu ñu naan hormone yoo xam ne moom moom mooy def ngay gis règle chaque chaque mois mhm. léegi soo demee benn âge loolu day wàññeeku hormones yooyu day wàññeeku su wàññeekoo donc comme mi ngi wàññeeku ndànk-ndànk donc yow tamit sëñ day ñëw ndànk-ndànk ndànk-ndànk lay ñëw. Euh, ménopause euh, docteur lan lay def si euh, santé euh, ku jigéen ki maanaam nan lay impacté wérgu yaramu ku jigéen ki. d'accord da ngay laajte signe yi nan lay def sa yaram. maanaam euh, est-ce que ménopause euh, parce que d'habitude dañuy gis am na jigéen ñu bari ñoo xam ni suñuy ménopause wala ñuy waajal dañuy jàmbat mhm. ay feebar yu baree bari est-ce que kon mun nañu wax ni ménopause dafay am impact ci wér-gu-yaramu ku jigéen ki waaw wala déet xam ku nekk ak sa ménopause ku nekk ak ménopause nit ku nekk yow yaa xam sa ménopause nu muy def parce que nit yi bokkuñu ménopause yi bokkuñu donc comme dafa am di fonctionnement d'un organe des organes que day kii day euh, du di fonctionnement sax day euh, comme dafa am euh, diminution de production d'hormones donc ku nekk da am noo koy yëge am ñoo xam ne duñ koy yëg dara am ñoo xam ne di yëg am ay bouffées de chaleur di ñàkk di énervé mm-hmm. yooyu yëpp ça dépend ci nit ki rek te te bu fekkee dal na ko jigéen ki est-ce que bu ñëwee ci ci gynécologue bi wala médecin bi est-ce que am na ay garab yoo xam ni daf koy jàppale ci période boobu. waaw waaw waaw ay garab kay. Mm-hmm. parce que soo nekkee soo ça dépend ci signe nga am. Mm-hmm. parce que dañu lay def benn traitement symptomatique. d'abord da defal la traitement symptomatique suivant les kii yi nga am euh, signes nga am mais léegi su dee signe dafa bëre trop trop mun nañu la def traitement hormonal substitutif c'est-à-dire. Mhm. ñu jël ay hormones di la ko di la ko injecté wala di la ko kii nga koy def sa yaram comme ça mu euh, affaire bi doo ko yëg comme ma ko waroon yëgee. d' accord euh, beneen problème moom mooy souvent ménopause euh, précoce maanaam ménopause bu teel bi euh, mhm. si ban euh, âge la ñu mën a wax li ménopause précoce la te tamit lan mooy euh, facteurs yi favoriser euh, la ménopause précoce. waaw ouais, ménopause précoce moom naka lañ koy waxee ci olof dafa am ay facteurs yoo xam ne dañ koy ñoom ñoom ñoo tax nga koy am. Euh, li ci dem mooy loo xam ne maladie auto-immune lañ koy wax xaw mën na koy waxee ci wolof maladie auto-immune wala mu nekk yenn feebaru kii yenn traumatisme yi wala mu nekk euh, euh, yenn yenn feebaru kii yu grave yi c'est-à-dire ay insuffisance rénale yooyu daal nga xam ne doo xaw a xaw a yéeme daal yooyu moom mooy ño andi la kii mel ne dafa am ay facteurs yoo xam ne daf ci bokk comme ay euh, tox cigarette ay euh, c'est pas stress yooyu yëpp ci la bokk. Euh, parfois docteur Babacar Diop ñu ne méthode contraceptive yi nga xam ne dañ koy utiliser bokk na ci li favoriser ménopause précoce est-ce que yow loolu da nga dëggal waaw walla déet. Euh, méthode contraceptive yi je crois pas mu indi méthode précoce parce que méthode euh, méthode contraceptive yi. Mhm. day bloqué certes ovaires yi ak yooyu mais soo ko bàyyi day ñëwaat. c'est c'est réversible c'est-à-dire suñ ko defalee su suñ ko dindee après day ñëwaat donc lool loolu du du dara ci Eh, njur bi du wàññi dara ci eh, règle yi. am na tamit ñuy wax ni eh, jigéen yi nga xam ne dañuy faral di avorter wala sax entre guillemets di yàq ëmb lu bari ñoom souvent. ménopause précoce daf leen di yàpp est-ce que loolu dëgg la waa wala déet. loolu loolu ci traumatisme yi la bokk comme ni ma waxoon traumatisme ci ci traumatisme yi la bokk. la bokk. donc mm. mën na bon mën na nekk li euh, favoriser ménopause euh, précoce est-ce que am na ay recommandation euh, yoo xamante ni moom la ñuy digal ku jigéen pour ménopause précoce boobu bañ ka dal waaw ménopause précoce peut-être comme nu mu la waxoon sànq rek maladie auto-immune yi mënoo ci dara ah mais traumatisme tamit peut-être doo ci mun dara mais léegi yow la nga ci mun mooy peut-être eh, kii bi eh, naka lañ koy wax te eh, cigarette beeg yooyu daal nga wàññi ko bu baax wàññi stress bi. en tout cas lu mel ni cigarette bi moom si à éviter. waaw ça moom c'est à proscrire. voilà ñu wax tamit euh, ci beneen ponk bu soxla actualité bi ñu gis ni euh, gynécologue nga te femmes yi baree bari euh, dañuy dem di accoucher wala ci hôpitaux yi ñu négliger leen ba ñu ñàkk seen bakkan ak seen doom gis na scandale yi fi am bari na ci côté mm. boobu yow déjà en tant que fajkat gynécologue naka nga gisee scandale yooyu. Euh, loolu mooy wane ne ñun euh, développement moom euh, egguñ fa dara sore nañu développement parce que soo nekkee ci yenn réew yi niveau socio-économique bu maladie à niveau socio-économique dëkk bi ci boppam dañ dafa élevé de de telle sorte que yenn yenn yenn gàllankoor yi doo ko doo ko am doo am ay problème mu bilan doo am problème mu ordonnance doo am problème mu dara yëpp dañ day day ñëw régler lépp su ne yëpp nag day yomb est-ce que dégg nga lu ma wax. Mm-hmm. yëpp su ñu mm-hmm. yomb. Mm-hmm. mais su dee da ngay ñëw di daw fii daw fale daw fale pour am fii par exemple nga ñëw war a euh, benn malade ñu naan la. malade bi lii malade bi lale ah, amul lii bilan bi lii yooyu yëpp day day andi yeneen problème parce que yenn saa yi da ngay ñëw su dee <coughs> famille bi du du ko mën a jënd. Mhm. su ko mënulee jënd ñu dëbba dëbba say mbir. taxe mhm. ba génne luñ ko jëndee wala ñu may ko ay garab faj ko. mais su dee su loolu c'est pas possible c'est très difficile pour que euh, ñu ñu faj boobu. Euh, peut-être parfois ñuy wax négligence euh, tamit ñenn ñi di wax wàllum euh, plateau médical bi baaxul ak tamit euh, surtout limu gynécologue yi doyul est-ce que yow da ngay dëggal euh, ni limu gynécologue yi bariwul surtout ci yenn hôpitaux yi duñ fa gis gynécologue duñ fa gis spécialiste loolu loo si mën a wax. waaw loolu moo moom la doon wax rek sànq moom mooy ne say niveau socio-économique moo baaxul soo gisee médecine en général sax ñun say niveau euh, des na encore lu bare soo xoolee nombre de médecins par euh, par euh, par habitant da nga xam ne ñun dese nañu lu bare encore soo demee yenn régions yi doo gis gynécologue c'est sûr soo demee yenn hôpitaux yi doo gis fa gynécologue doo fa gis cardiologue doo fa gis ñu bare donc ce qui fait que il faut que ñu jéem a góorgóorlu pour augmenter nit yuy def médecine nit yuy def euh, spécialisation di leen ko yombalal et puis di leen euh, di leen dimbali daal. mais mais mais euh, docteur Babacar Diop souvent dañuy wax ni tamit yéen euh, hôpitaux yi du ngeen si joxeeti comme ni ngeen war a joxe parce que médecin yëpp am nañ seeni cabinet privé moo tax sax taxawu bu ñu war a taxawu malaat yi euh, ci public bi duñu ko def parce que ñu ngi tal seeni clinique seeni cabinet foofu maanaam daal yéen léegi yéen a dàqawut waal ah, xaalis sax ah. ñi nga xam ne ñooy commerçant yi <laughs> loolu lañ leen di wax voilà xam nga xam nga dafa am médecine privée am médecine publique. Mm-hmm. ñun ñu nekk ci privé bi duñu dem ci public bi duñu dem foofu duñu fa duñu fa xam sax donc léegi soo gisee ñeen ñoo xam ne ñu ngi dem ci jóge ci public dem ci privé dañ leen ko may dañ leen ko may dañ leen dañ jox ay jours yoo xam ne mun nañ fa dem dafay dafay seen xarmat comme ni ñu wax am na ay jours yoo xam ne par exemple ñu ne la am nga deux après-midi la par par yoo xam da ngay dem euh, dans le privé lool dañ leen ko may. mais ñun ñu nekk dans le privé ah, loolu moom ñun ñu dugg ci ci public bi. Hmm? mais mais mais ñu nekk ci public ba pare euh, di oriente seen maladie ci seen cabinet ci privé bi loolu tamit bokk na si li nga xam ne askan wi dañ koy ñaawlu tout le temps maanaam daal ku yorul koo par bu bari doo dootoo faju faju bu baax. waaw boobu xanaa day fekk ne. Hmm. lu muy lu def war a def foofu amul ci hôpital boobu. mais su dee da su da war a faj benn malade nga xam ne jum kii bi jumtukaay bi la war a la war a utiliser su dee amu fa ci hôpital bi fa mu dem defee ko feneen mais su dee mi ngi am ci am ci hôpital bi doo ko doo ko yóbbu ne ko demal defee ko feneen. doo ko orienté sa cabinet. non sa clinique. non non doo ko orienté sa cabinet wala sa clinique. tey jii peut-être. Mhm. dernière question voilà. oui oui. oui allez-y docteur. non man day fekk ne peut amul foofu ci hôpital boobu moo tax mu yónnee ko ci ci euh, dernière question tey jii boo amoon euh, looy suggérer état wu Sénégal pour relever la plateau médical pour gën a defaraat faju bi fii ci Sénégal. waaw mais c'est que xam nga hôpital euh, relever plateau plateau médical am moom ni ngi koy xeex depuis une belle heure temps parce que en fait. ministère sax mi ngi ci ah mi ngi ci mi ngi mi ngi liggéey bu baax mais euh, c'est que peut-être budget budget santé moo doyul donc euh, budget santé su doyul doo mun jënd yenn matériels yi soo jëndul yenn matériels yi doo ko mun a kii donc am na ay affaires yoo xam ne <coughs> il faut que il faut que euh, autorités yi tamit xam ko ñoom et puis du loolu rek tamit parce que soo soo yëgalee niveau niveau. soo yëkkatee niveau euh, plateau technique bi tamit mais il faut tamit population bi tamit am lu mu fayee. Mm-hmm. il faut population am lu mu fayee. lu mu fajoo waaw parce que ko amul loo lekk moom doo am loo fajo voilà docteur Babacar Diop euh, Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. voilà docteur maa euh, leen di remercier. merci may fàttali ne gynécologue